ñetti match dem nañ dañ taale premier demi-finale Kaolack Thiès Kaolack moo ñu kanam mooy Madi di Thiès moo ñu woon gannaaw xale yaa ngay Leewtoo Thiès daw na jël ko attention attention Madi Thior daan na ko Madi Thior daan na ko Madi Thior daan na ko ma ngay contesté de waaye Madi Thior daan na ko arbitre nee na ko taxaw leen attention ekkiti na loxo Madi Thior Kaolack am na un am na un combat pour demi-finale diggante Thiès Kaolack Ndig Mama moo ñu wan kanam ngemboo ngemb lu ñuul li Thiès wan ñu gannaaw takk ceinture noire bi attention daan na ko wala daanu ko attention Big Ndiama daan na ko daan na ko daan ko daan ko leer na daan ko 1-1 1-1 troisième combat baa ngi noonu ci 86 kilos Badara internet ak njool bu ngay lewtoo njool bu sana fete ñu càmmooñ fete ñu jor jàppante nañu jor bi neena ba tere internet njool bu sana xamanta nañu xamanta nañu ñom ñaar tere internet mo ñu wan kanam njool bu sana won ñu gannaaw kaulak ties ci demi-finale def nañu attention njool bu sana daw na ko tere internet dank doucement dank attention nee na bëre leen attention ba léegi arbitre bi nee na dara amagu fa daf la ñu léegi recours ñu daan ko attention attention attention Badara internet ki ngay bëral il est ñaari action yooyu doy na waar demi final bi metti na attention njool bu Sénat daw na jëli ko Badara internet na ko doole doole attention jël na tànk bi jël na tànk Badara internet attention attention dawal dawal looy taxaw daan nañ ko daan nañ ko daan nañ ko ah woy da taxaw daan nañ la daan nañ la daan nañ la daan nañ la combat baa ngi noonu quatrième combat baa ngi noonu Papa Ngane Sokh Sokh Kaolack Thiès Thiès moo devancé waaye Papa Ngane Sokh Sokh mën naa sauver Kaolack ndeysaan demi-finale bu metti la suñu daane Papa Ngane Sokh Sokh Thiès moom mooy dem finaal attention attention Papa looy bare ndaanaan la Jambar la waaye bloqué nañu ko arbitre nee na ko baral combat pression la nak kuñ buñu ñu Papa ngan ties mom moy dem la. ilaha illallah ay waji lu mi nuru way la ilaha illallah arbitre nee na bëre leen attention jëli ko jàppoon nañu ñoom ñaar bloqué na ko attention usine technique laa ilaaha illallaah ay Papa Ngane usine technique waay Kaolack Thiès arbitre xale yaa ngi bëre bàyyi leen rek usine technique. usine technique Papa Ngane. attention. na jël ko attention. laa ilaaha usine technique Papa Ngane. arbitre bi nee na nañ bëree. technique Thiès Papa Ngane Sokh Toubacouta attention Toubacouta ak Radiakhé Radiakhé Toubacouta Kaolack Thiès demi-finale Kaolack Thiès ndeysaan demi-finale Thiès Kaolack attention Radiakhé attention attention Radiakhé jël tànk bi attention attention la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah lu yam lu yam Radiakhé daan na ko Radiakhé daan na ko Kaolack qualifié na en finale Kaolack def na exploit Kaolack def na exploit bu rëy rëy rëy rëy rëy